loolu doy na waar. Sané ka ci biir kër gi. bilaay lii de doy ci biir gi waare mi doy na nu mel fa réew. Njako dafa dof ñii dañoo réew ba dof ne lu ci pexe. ñii faji ka ca réew faji ka ca dof. ñoom mu ji Ablaye Diop mu def ci ñaan kii mooy borom xaas. contrairement contrairement contrairement appuyé rek te bañ maa compté. waaw compté la compté la ba ngoon di appuyé di ma. waaw dama benn ñaar ñett waaw waaw aywa jooy ñett juróom ak ay jàmbaar juróom benn un benn ñaar nga def ñaata nga def. ñaata nga def. ah ah te koy defee nii da ngaa mel ni ku ku kii nag man lu ma jaaxal man suukaru koor yi ren yi kenn indiwul. saja saja la suukaru koor. ma de. xaaral après bu ma duggee ci biir mu jox la ko. Ah, ah? bul bu ko waree téléphone yow bul décorer sa téléphone bul bul bul bul am téléphone yow. man damay saagaat. Ah, saaga. lu tax ma may saaga saaga baaxul. tele naa la saaga nag. waaw léegi lu tax nga may bul ko woo bul ko woo rek. bul woo xajaa bul woote amul numéro booy ba rek. woo kenn yor naa bul woo kenn. te te te te. mbay mbay mbay mbay mbay eh, mbay mbay. Eh, mbay ji mu dakk. Ah, ah lan la xamoo lan la yow. waaw nag yow tamit. yow bi ma léegi sama kër lii lan waxante woon maa ngi yow. lan la lu xew. Ah, ah, yaa ma war fay fayoo ma waxuma la leen bi nga may luwee da nga ni yow kese laay luwee ah mu ñëw fekk fi nga fi ñii ñii dana bokk ci lu bari ñii xam nga leen lañ ñii xam nga ñan lañu. ñu mu doon ñii samay doom lañu. maa leen jur. ah say doom nit na fu mu dëkk day dëkk ak doomam. waaw waaye nag boo dëkkee say doom. waaw nga dëkk ak ñoo xamante ne day neex. quartier bi ku ne ni ma woo. ñii kar kar ji jugee fële. quartier bi yoon nekku. nekk de ay dof nga luy nga bu ci ay waaw waaw kan lay dof. kan lay dof. mooy yokk. dof ko koor mu naa ko. sëñ bi lan. wéñ bay yaa ngi dugg ci loo xam ne mën na laa indil kaa ah, yow mi ma ci njëkk a dugal yow mi dugal sama kaa yow waxal ak man te bul wax ak ñoom ah, parce que xoolal man nag lu fekk na ko jël de moo yow dama ci góobe gar ko maa moom kër gi ah damay génn dama ci génn yow kër gi boo ko moomee yaa ma ko luwee ma la ko luwee waxuma la ay dof yow kese ay dof ay dof yow waxaat ko waxaat ko ah, waxaatal def loo bëggee ma wax ko yow ah, ah, dangaa reew nga doonu kër dangaa reew kan moo dangaa reew dama sa morom de fekk samay doom toog nga naan leen dox daf ay yow waxal reew danaa ko wax waxal danaa ko wax waxal waxal waxal yow amoo fit eh waxal baay boo amee fit waxal dof way yow waxal boo ko waxee mu duma la man ma bàyyi ko ne ñu duma xoojal ma la ci paanu ndox ah ñii mënuñu maa duma man jóg leen waxal ka waxal ko waxal ka jaru ko waxal violation de domicile rek lu xew fekk ma fii ma toog ah yemul ci fayeeku lu yaas lu dugg di di taawee sa naan ay dof nga yor. lu wax ak kawé boo xam ne bu rek li ma eh, eh, ko wax. Mbaye. weer bi la. waaw bàyyi mu sedd. xam la amee. a gémm xam nga lu ma bëgg. waaw fekk si ah, ah, weer wi li ci aaju pour ma defal ko daa bari di. jéggal leen ko te nga jaal si. ah noonu nga gisee. jéggal leen nga jaay ci biir. jàll yéen am ngeen saaf. Eh, eh noppil. eh noppi ma yow. mooy yow. mooy noppi yow ma yow. kii mu dem bul yuuxu sama papa de. ma yuuxu sa baay. Ah, yow ma yuuxu sa eh, baay. ma yuuxu sa baay. ma yuuxu sa baay tamit. de de ma yuuxu sa baay. ma ngi sa ma xoj. jaajëf waxoo xool ma yuuxu sa baay. waaw jaajëf si nga baay waxaatal waxaatal. déedéet waxaatul. waaw kenn du ko laal bu duggee ci biir ko nañu faat ko. warta dugg ci biir lan lay def ci biir. cala bi nga doon. toll ni weeru koor nga ñëw di cala. yow tamit ndax sama mbaa yow pap lokkoñ réew dana ba xool ko war bu heure bi du dugg ci gëma yàlla muy rek la doo ko rek la fii gëma yàlla gëma yàlla waaw loolu may gëmee yaa ñàkk gëm yàlla yow yow xam naa lu baax fetul coow li muy bali ba yaa ngi doon xool fa waa ji day dugam de dugg na felt nga gëm a yàlla. lan lu sama yoon. Ah, na dugg lu sama yoon. ah léegi fàtte nga. waaw lan laa doo laa perte. dootoo yëndooti dootoo di affaire yàlla. fan laa yëndoo ka xamoo. fan. bu kii est la yow la kan. man la sabaay man la sabaay da ngaa jaawale. maa yow changé kenn changé wu la. kon may changé. yow keroog fii ci douche fii keroog ci néeg bi yaa mën a fen eh kii wax na la dëgg wax na la dëgg wax na la dëgg nag papa yow kat yaa fi nekkoon di yërdu di yërduwaat ah, ah. nga naan ko waaw na fen yaa mën a fen moom rek tax na li nga mën a fen fii lañu fekk papa nag ah. yem leen ci tànk ci ci ci gone ah danga may dóor man kenn ma joxe maa la joxoon te dégg maa la joxoon tey kontaan nga yow dana rey nit weer koor bi bu rey kenn kontaan naa. sa xol seet la jàpp ne maa ngi Serigne Bande. Ah. si maa laa benn yoon xet ci. oo oh, nga ci man <laughs> sama kii kon jeex na ah. waaw ah, kon ci kanam. <laughs> ah nee ma xool la. sim sama kii nag bàyyi kenn du yow. waaw kon ba waaw incha allah. waa demal nag bàyyi ñu. mën ngay sax. yow mënoo yow mënoo yow mënoo jógee mënoo génn baax na baax na baax na waaye dañoo tudd baayam nag tamit del intervenir ngaa lekk le ko rek koo indi dugal ko fii rek du waxaat waaw sama faafi keroog nangu ko defoon waaye war ngaa bàyyi moom it ñam na bi xam yow tamit da ngaa ëppal. ah non non yow laa faral di. wuy ma mi bu leen ko may jàmm ci koñ bi. Hmm. fu mu tourné sëlëm leen ko suuf. Ah, nga fekk fu ngeen ko fekk toroxal ko. xoolal bu leen ni ko nag sam ko. yow kay noppi rek papa. man xoolal man moom xam ne bu ma ko dóoree. déedéet waaw ko defee bàyyi dóor ko ba bu ñu ko dóoree dootul fayeku lu yaas. mbaaye daal fu ngeen ko fekk na kanam gi weex. yoon on rek. yow fu ngeen ko dee rek fayal lu yaas dégg fu ko defee fu ñu ko dóolee du amati lu baax. xam naa bu muy jaar buy dem jàkk xam naa fi muy jaar kii dafa dof. ay xaar lan man ngeen ko fekk na na métti. mu ne ah. sa yoon. tëjee sa làmmiñ waay yow. tëjee ah. làmmiñ baa xam yow tëjee sa may tëj sama. mën rek laay ma. barke barke Alxuraan da ngay wax ak man fas da ngay wax ak man fas fas ngay wax ak man. dama laa mere. def. mbaay laa wax nga may lijjantil ma ay mbiram nga naan ma fayal lu yaas ma dóor ko. lépp dee ko def lépp. yan suul. saa yoo taseeg moom. waaw bu fi ñëwatee. léegi bu fi ñëwatee. waaw wala assuré bu fi ñëwatee. wa nga fay ko lu yàgg su ñuy génn ma ko ci te ñus ko du ma xaar sax ma ñëw damay bàyyi génn ci bett mi rek fu ma ko gis dinaa ko colam. man yaay sama doom. ok père. man naa ah. ok fii. jël taw jël taw mu ne mais yaay sama yaay nekk yan. eh du ma sën eh xoolal te waxi dof yoon na mu génnee de bokk yaboy bi ma doom. Eh, waxti waxti. bay bay ma waay bu ma ko dooraat. am daf mu la dooree da ngay fayu boo fayu la ngay def. ci biir loolu doy na waar. saa neex a këram. ci biir kër gi. bilaay a waar na waar. nu mel fa réew. ña ko dafa dof. ñii dañoo